<laughs> ñu dalal ko fi euh, ki nga xam ni rek moom moo di euh, Sall Ngaar Lamtoor Arwaar bu Gédé ñu ngi lay président. maa ngi lay fay di la bëgg di nuyu Sénégal la ñoo xam ne mu tëram di nuyu Saga loolu fii ak ñun euh, di leen nuyu di wax fii madame la kii madame Dieng la. Oh, y' a que de grandes dames voilà. ah tu ah. ah, hmm. di kii. damay woote mais président il faut yow fi réew mu toll. fi réew mu toll. ak dëkk bi li mu méttee xale yi di dee ñu jàppe ah émédi di nekk ci dëkk bi yow amoo looy def lu dem. ànd ak sa soxla di naan koko. <laughs> koko bi neex na mais ko euh, xam nga. c'est pour montre l'extérieur et les. mooy nit ñaa pour que ni wane ni <laughs> réew bi am na calme. l'anniversaire de madame. dañu ko feete ba pare. vous voyez après si lañ madame ne bon il faut. ñu doxantu bu sew. xool dëkk bi parce que aussi tamit j'ai fait quelque j'ai fait beaucoup de choses dans ce pays. ñu gën a xool macha allah gis affaire yi mu rafet ñu jàdd am envie naan ko ma wàcc ci oto bi naan koko. jaajëf waay koko naan koko. loolu. <laughs> Uh-huh. non ko ko koko li kan. mais yow ak euh, li xew ci dëkk bi actuellement nit ñi di. bëgg a nga génn di ñaawal ñu Sénégalais loolu lay dugg lu xewoon ci dëkk bi. Ah, kon yëgoo ko. yëgoo passé. <laughs> très bien je ne vois pas ah, lan man nag yow nag man lii yoo tax ma bëgg la yëgoo ko jeudi jeudi bi passé. waaw dafa am lu xaw Sénégal football wala. non dañu football. loolu la koo yëg de président doon ne yëgoo dara. yëgu na ko yëg li xew ñaawal en train de kii c'est un pays très émergent mi ngi dox. maa ngi dem. dëkk bi émergent xale yi dinañ génn di taali pono. xale yoon ñu pono. loolu gën naa am loolu <laughs> c'était en 2012 say forces de l'ordre di sànni ay lacrymogène. la loolu loolu loolu jamono Ablaye Wade. mais tey mais nag euh, <laughs> président. jamono Ablaye Wade jamono jamono Ablaye Wade yow sa jamono. ak ah, jàpp yu bari yi yooyu boo toogee ñuy jàpp ku ne war a aaral kañ lañ jàpp. ñu jàpp nañ Karim Abdou Karim Gueye xurum xaq. Karim xurum xaq. waaw jàppati nañ ko ak sans compte. ñu bari jàppati nañ ko. waaw jàppati nañ ko waaw. Ah, kooku Karim. Karim Karim il est celui dafa delluwaat ñu ngi lay dégg tey ci benn interview bu nu. Karim bi muy génn la wax gardien bi la déggoon caabi gardien bi na ko teel ma maa ñëwaat. ah d'accord loolu méttiwu la garde à kon loolu méttiw la ñu ngi ko def garde à laa la la ah kon loolu am mais man waxuma si yooyu soxna si dama bëgg ñu ñëw waxtaan si troisième mandat bi wax nga ko si loolu lañu ñu war a wax voilà démb nag euh, démb euh, dem nañ ci ki nga xam ne rek euh, sa premier ministre bi mu demee lax génne na fa nag ay wax nee na yow nee na mu neex mu naqat yi da ngay da ngay nekk li xam ne moo di da ngay bokk ci ni joxe fan yëpp maa ngi bañ ah, parce que aussi fan yëpp bëgguma wax dëgg fa yàlla mais xam nga Amadou di ma xëcc di ma jàpp ci les ministres d'état di kii bon vraiment nee nañ ma mënoo kii sëriñ si ñëpp nee nañ ma réew mi kenn du ko bàyyeeg ay gone mm-hmm. Xaadim Sàmb waxoon na ko aussi tamit xam nga parce que aussi tamit réew mi nee nañ ma parce que projet yi la BRT la réussir terre bi. xool nañ lépp kay réussir ak li nga xam ni war naa ko def. mu jëm ba fi nga xamante ni fii moom la ñuy tuddee euh, autoroute bi war a jëm Saint-Louis. Mhm. et aussi pétrole bi génn. loo xamante ni bi bon gratuité la nar a doon essence jënd essence gratuité. Senelec gratuité ah. du ñu fayati dara. aussi ak li nga xam ni courant bi gratuité. macha allah ah, du fay dara et puis salaire yoo xam ni ñu ngi koy préparer pour les pour tout le monde. Sénégal devient limite. incha allah 2011 2011. loolu nga doon xeex. non bokkul mandat ah. ko fi bañ a defee say waxi démb ak say waxi tey. lii du samay wax waxu réew mi la. non non non samay wax man bëgguma dem. yaa leen man bëgguma. yow bëgg bëgg nga dem mais réew mi ñooy wax ñoom yow dem. ñoom ñooy wax ne réew mi la réew mi mais ah. Amadou Ba Amadou. Amadou wax na ko wàññee sama loxo. même kii. léegi lan moo tee ba mu ko waxee dàqoo ko comme ni nga dàqee ñeneen ñi. mais nu ma ci man munoo dëkk di dàq nit ñi. Mhm. parce que ñi ma dàqoon sax ñi maa ngi leen bëgg a jëlaat ñoom Moussa Diop. maa ngi leen di. Moussa Diop maître Moussa Diop. Ah, parce mhm. que. dàq boobu dama ko defoon nii mais wax dëgg fa yàlla seet naa ba seet xam ni aussi. dàq mais mais xam nga ni troisième mandat du fi am. Euh, est-ce que xam nga ni troisième mandat du fi am. yow yaay kan yow. <laughs> man la man ci citoyen sénégalais yi ci laa bokk. sénégalais ci ñuy bañ loolu. c'est sûr. <laughs> yow sénégalais. Euh, mm, bien président luy firndeel <laughs> yow lan mooy firndeel ni sénégalais. le président de la république. yow lan la. Sénégal laa juddoo. lu ñu si leer. ah ah yow li ma ñàkk a leer mën ngaa juddoo ñëw ne Sénégal la. ñaari problème. président lu ko lu koy firndeel. waaw ñu man euh, juddoo woon Mali dina am kàddaa waxal fii wala Sénégal ñu bëri am nañ ko tudd ñooy Sénégal. président euh, euh, ah, ñëw na samp dëndam. Cheikh Niass Marito Niang mel na temps bi jeex na. Cheikh Niass na yem si rajo bi. <laughs> na yem si rajo télé bu mu xuusal naan ay kii maa ngi wax mu naan ay candidature xanaa gisul Sonko <laughs> xanaa gisul. Ah, nee na nee na day nee na day kii candidat ah. Sa Ndiogou sax nee na day kii moytu ma ne. booy caaxaan kon yooyu waxuma seen wax ñi xam dañoo caaxaan ba naaw. Adja may wax mu moo tax ma jox la ko Adja kon ba suba incha allah.